Président Pape Diop, ce jour est un jour déterminant pour l'opposition, je dirais. Nous ñaa sorano. daw di engagement ak conviction ak détermination ak sen loyauté ci gannaaw président Pape Diop en fait fi

Président, Président Madiké, cette journée est importante et solennelle pour nous. mais dañu ko bëggoon a màggal tey suñu façon thème bi suñu sœur Khady dina jóg waxtaan si moo tax duma si wax dara li wax rek tey mooy yokk leen wax na ñu takkaat combat bi ñu jëm combat bo xamné la du combat vitesse mais combat xel la té liñu mëna jox c'est ndam moy bokk ndey bokk bay kenn ko am kessé nous bi autour de la table président Pap Diop sa xel dal aujourd'hui dans l'histoire politique du Sénégal vous êtes un homme incontournable sur l'échiquier politique vous l'avez prouvé parce que tey bés bi dafa yombul ku ñu jox piis solal la feel la ñaw gaareel la auto ne dugal nga mun a taxaw mobiliser lii si zéro franc bravo les dames de Bokk Gis Gis président pap Diop ma gërëm waa PDS gërëm waa PDS li tax ma siy njëkkee c'est vrai que je suis un produit du parti socialiste ni ko sama jabar waxee mais président Ablaye Wade daf ma sagal sagal bi moy dama def 20 ans dans le parti socialiste 18 ans de 18 ans de présidente d'union régionale première vice-présidente nationale et jotuma fa am ndombo tank ma ñëw ci bir PDS 2005 2007 mu def ma sénatrice je lui rends un hommage ici mérité et appuyé

de vous rendre un hommage mérité, mais de vous dire merci. Merci pour le choix porté à ma modeste personne. Je suis Nyan. Si Yalla, ouais, makoy ñaan Nyan si barke Cheikh na Cheikh Sad. Yalla bo ma xeb. Yalla bu ma la massa wor. Yalla bo def lo xamne dina ma toutal sama digante ba ma mën la xol. Je le dis devant cette auguste assemblée. May wax né président dañu togon fi biñ ma défé député ma awma aw ma dara waaye fas naa si mandat bi ma nek as tout si ma si am pendant juróomi at at mu jot ma joxe si billet Makka ak devise c'est pourquoi aujourd'hui j'en profite pour dire au président Pape Diop que le moment est là ouverture yi ubbeeku na nit ñangi ngi vacciné wu jël nañ hôtel yi

Monsieur le président sous votre autorisation parce que waxtaanu ma si ak yow ma waxoon ne billet bi dañ koy jox koo xam ne mag la si biir parti bi bu nous, ñun xale yi ñu jàng constance jàng engagement mais jàng loyauté aujourd'hui je voudrais que ce billet ñu jox ko Adja Binta Sal pour sa loyauté vis-à-vis du président